mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that. président Ndongo ànd defar yëmbal. est-ce que mën nañu wax mën nga ñëwaat tey la moo waral sa teewaay si bés bi. bon ñii da leen diwoon ne dina jox leen ko in lal yi ñëw na bu yàgg ça fait 10 jours mu ñëw ndax ñu noonu xaar euh, seen quinzième de la femme pour ñu jox leen ko te si ñoom dañ koy organisé loolu moo waroon ñu def ko tey. nga choisir euh, journée bi nga xam ne moom la jagleel femme yi pour nga jox ñun choisir benn date ñoom ñoo ñu demandé ne nan leen ko defal tey ñu defal leen ko tey waaw. dama ñun partenariat ban. yaa ngi maternité bi. non maternité bi nekkul question du partenariat dan noo xool ñu doy leen rek. ñu ñu defal ñu bébé de l'année si biir bébé de l'année boobu lan leen nag ñun dañ leen defal nangam ak nangam ak nangam ay engagement yu yu longo ane defar yëmbal jël engagement yooyu la longo ane defar yëmbal di respecté waaw moy dañ leen leen peinture maternité bi dina leen indil ay lal dina leen climatiser maternité yëmbal ba nga xam ne jigéen bu fi amatu doom dootul sonn su paree dina tëdd peex bu neex di ko ëpp maanaam intention boobu la am maanaam ñu nekk Dakar lu ñuy dund ñun loolu lañ bëgg a dund parce que ñun nekkulu région de Fatick ou région de Kaolack ñoo ngi actuellement à Yëmbal région de Dakar. ban message message. ban message nga ñu roy ah, ñoo ngi lancé message acteurs yëpp képp koo xam ne yaa ngi yëmbal yàlla may la dara nga jaamu yàlla si jaamam yi soo ko deful carrément da te nit fu mu dëkk balaa moo génn àdduna war na fa def empreinte bàyyi ko fa ñu koy xoolee ëllëg si biir yëmbal bu màggee bala ñu mënee tuddee nit ñi ay ay ay xool wala ñu leen tuddee ay hôpital wala ñu leen tuddee leneen ak leneen ñu xam ne ay doomi yëmbal la ñu mën a jël tuddee leen ko mais bu nekkee da nga yor sa alal denc ko sa poos kenn xamula ba nga génn àdduna tamit nit ñi duñ la dañ lay fàtte rek mm. waa te nit bu nga fi bàyyi sa tur à vie mm. loolu rek la situation ya mbal jamono ya jino noo ko gisee tanto gis nañ ni léegi nga ne Longo dafa ya dem ba day accompagner monsieur le est-ce que mën a jàpp ne ñoo japp ne day Longo la dee si bi léegi Longo and defar yëmbal la lu wax waxu waxuñu Longo and yàq yëmbal fi defar da ngay and ak kuy liggéey waxa kan ndaw lu moy suñu maire pour 5 ans kon ñu gëna wara and ak mo pour cinq ans si kaw lolu wona ñep muy mbay jey muy Mansour Sow muy Ndëri dara Gawsu Koma euh, soirée képp koo xam ne yaa ngi fii te bëgg a liggéey yëmbal intéressé lu tuuti nga ñëw ñu ànd ak Babacar Ndaw ñu liggéey loolu ñoo ngi siy dox di si wax di leen seeti ñëpp tam waxtaan ak ñoom pour ñoom ñëpp ñu ñëw ñu ànd ak Babacar Ndaw liggéey yëmbal Babacar Ndaw dañ ko fal pour 5 ans yi par A par B da koy da koy toog délégation spéciale fu mu la jëlee te ñaanu ko yàlla keneen kuy toog nag yàlla rek a xam. Mhm. waaw kenn xamul ku fi ku fi 2027 di ñun ñëpp dañuy dund rek nanu ñaan yàlla bu comme ça réew mi su yëngatoo lu ko yëgal benn doomi aadama la barki dem déglu naa si revue de presse mu ne su ma mbir mi sedd euh, Sonko dañ ko dañ ko convoqué mu wuy ji ki convoqué moom su boobaa bu nekkee yàlla may na ko xel na xalaat ñu na xalaat ñu faatu moom mu xam ne benn geste lay def mu ne retiré naa sama plainte wax ji jeex Sénégal nekk si jàmm maanaam loolu bu ko defee Sénégal dina nekk si jàmm bu ko deful tamit lépp lu am moom nga xam ne conscience am du ko ko ko waaw parce que lépp lu faatu si Sénégal rek moom dafay bokk waaw malgré moom kii dañ ko convaincre pour mu dem yow yaa mën a baale soo baalee mu dem te adduna bi baal dafa am njëriñ man nit da ngay baale parce que suñu borom dañ koy tooj sax ko mu baalu kon ñun tamit duñu ay mala danoo war di baale suñu biir mom na def ndaw retirer son plainte merci beaucoup c'est bon merci beaucoup nous vous transmettons toutes nos, félicitations et nos salutations par rapport à cet événement-là. Donc c'était l'occasion euh, pour nous aujourd'hui de venir représenter le maire Babacar Ndao, euh, le maire de Yombal Nord, à la cérémonie euh, de sargal Djigen au niveau de la maternité de Yembal. Euh, nous en profitons aussi pour euh, participer à la réception du matériel que M. Moussa Fall, le président de Longo, André Defer Yembal, a remis à, la maternité de Yembal. en fait, c'était une promesse lors de, la célébration la, du premier bébé d'Alan. Donc, M. Fall avait promis à la maternité de leur apporter du matériel médical, notamment des lits euh, d'hospitalisation et du, petit, matériel qui accompagne la maternité. Aujourd'hui, c'était l'occasion de remettre ce lot-là vraiment au nom du mouvement Longo à la maternité de Yambal. Mais il a fait l'honneur à la mairie de Yambal, notamment nous qui représentons le maire Baba Karndao, de remettre ce lot-là de matériel à la maternité. Merci beaucoup et félicitations, Monsieur Fall, par rapport à ce geste noble à l'endroit de la communauté de Yembal, de la population de Yembal. Il invite aussi à toutes les forces de fédérer autour de... Mais oui, c'est une bonne initiative. Donc, euh, il a invité à tous les acteurs qui interviennent à ou bien qui veulent intervenir à Yembal de se réunir autour du maire Baba pour que Yembal soit émergent. Et ça aussi, c'est un acte noble. L'initiative est très noble. Et nous appelons tous les acteurs à, fédérer leurs forces pour au moins l'intérêt de Yumbel. Et je pense que si on répond à l'invitation de M. Fall, le ira de l'avant. Et c'est ce qu'on souhaite, franchement. Nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes des adversaires, politiques. Donc si M. Fall fait cet appel-là, tout le monde doit y répondre, franchement. budget marraine bi pour kii quel budget. Badiane Maïmouna Dione présidente communale euh, secrétaire générale au niveau du département en même temps présidente nationale mouvement sàmm suñu alal. nan ngay wax tey yi nga xam ne dina ko dara jaale en même temps ki président Moustapha Fall ñu ngi ci ay nuyu bés voilà bu may njëkkee damay njëkkee ci président Moustapha Fall ci acte bu rafet bii mu def lii defalu ko euh, maternité bi yëmbal gépp la ko defal yëmbal tout court lay wax yëmbal sidd yëmbal no ndax tay, li tay ñun ci la ñuy dox guddi di ci dox bëcc kon bu ko yalla andé mu ne salaamaaleykum dugal loxoom fo xam ne ñëpp ñëpp lay laal kon duñu def lu di ko remercier di ci wo ñëpp nak li acte bu rafet la parce que tay nga doon nga doon malade wala nga ñëw fi tëdd ci li wala nga matériel yi mu am mu andi fi yëpp ñu di ko utiliser kon duñu def lu di ko sant Fall ñu lay sante bu baax dila ñaanal yalla li nga bëgg yàlla na la ko yàlla defal ndax lii moom boo ko defalee rek defal nga ko yëmbal yëpp si dara jay ma xam euh, mhm. waaw yàlla dafa def avant ñuy nekk ay bàjjanu gox mhm. danoo nekk fii tey du ma wax se nuyuwuma euh, présidente euh, Khady Gaye ndax moo nekk présidente comité consultatif boot groupement yëpp ñun ñëpp bootu tey dañ ne bàjjanu gox boo gis ci groupement la jógee kon tey bu taxawee rek day ëmb lépp kon euh, lii ñu ma def it ma def lu dul sant leen gërëm leen ndaxte ay bàjjanu gox la di liggéeyal askan bi ñu ne ñuy liggéeyal askan bi di ay femmes de développement di daw ci social guddi ak bëccëg kon ñoom ñuy suñuy nawle tey bu ñu jëlee lu mel nii daf ma ko mareel lépp lu ma jàpp dama koy bàyyi ñëw ànd ko ak ñoom ba mu jeex gërëm Thierno Diop mi ma waajal mm. ma noppi di ko gërëm fu ma toll waaw parce que fu jëm ma la moo ma waajal moo demal lu ne ci enveloppe bi moo koy def balaa may dem sax danaan sañse bi génnal ma xool ah. kon macha allah lama ma ko waxoon rek ca kanamu Amadou Xor dama ne ko 4x4 euh, koy gis mu rafet mm-hmm. meuble taxaw mais moteur ba ak boîte ya ak bagage ya mm-hmm. moo koy doxal sama moteur mooy Thierno koy sant di ko gërëm Euh, maîtresse sage-femme bu maternité Yeumbeul Nord donc euh, maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp vraiment di baalu ñep ak ci toogaay bi parce que toogaay bi yag na te it tey na donc avant tout damay remercier madame le maire euh, mi maire Khady Gueye nga xamanteni ni bima xamanté ak mom ça fait 2 ans au niveau du benen poste buma ma nekkoon muy Daaru Rahman 2 donc mu nekk une femme de développement nek jigen bu baax jigen bu meuna sonu ci si donc makoy remercier bu baax parce que depuis ñu ñëw fi au niveau de la maternité activité bu ñu mësa organiser bo gesso dang koy gis donc mère khadige ñu ngi lay nuyu di la di la remercier di vraiment di la di la féliciter di la encourager parce que li ngay def aussi yombul. matériel si loolu laay ñëw euh, di remercier Tafa parce que Tafa ñu ngi xamante au mois de décembre mhm. biñ ko parrainé bébé de l'année bi mais depuis lors mhm. génneewul loxoom si maternité bi bon mu commencé na peinture maternité bi mhm. donc nee na dina indi ay ventilo climatiser saali tey jii mu andi matériel bii ñu koy rafetlu bu baax ndax lii ku ko gis xam ne c'est une valeur ku ko gis xam ne xaalis bu bëri la donc loolu yombul ñu koy féliciter vraiment di ko di ko ñaanal yàlla vraiment li mu def ndax defalu ko maternité bi il a fait pour toute la population de Yeumbeul parce que tay ku fi fajoowul sa yaay mu fi fiy faju wala sa mm-hmm. mbokk wala sa jarbar mm-hmm. donc li Yeumbeul yépp la ko defal mm-hmm. donc Tafa vraiment ñu maa ngi lay remercier au nom du CDS mais aussi au nom de la toute la du personnel de la maternité de Yeumbeul vraiment euh, ñu ngi lay remercier bu baax di la jaajëfal non maternité bi euh, c'est vrai que euh, nous avons appris au niveau du maire à quelques bonnes volontés mais aussi problème un problème de matériel parce qu'il y a quelques matériels qui sont à niveau mais aussi tey boo xoolee salle bi bu nawet jotee dafay senn da ngay dikk ay paan muy senn te loolu tey ak ni yëmbal toll ak maternité bi lu muy représenté si yëmbal loolu je pense que ne bol bonante yi bu ko yëgee dinañ ci dinañ ci def ay jéego dalu dalu euh, toilette yi dafa wàcc dafay bëgg a daanu te ku nekk euh, dégg na jee yu am si si santé si hôpital yi mu nekk loo xamante ne nag nekk na suñu yi vraiment bu ñu amee ku ñu si jàppale am nañ problème point du nouveau-né ay aspirateur du nouveau-né vraiment bëri nañ ay problème tey jii boo ñëwee ci maternité si biir euh, peinture bi dafa délabré te ku ne xam na accueil ni mu amee solo si hôpital donc hôpital boo ñëwee taar taaraay bi dafa baax si luy attirer malade si luy retenir malade bi waa xat gi bu ñu amee tam yokk ay salle vraiment dina baax waaw dina dina dinañu jàppale vraiment on a des difficultés. mais pour ñu jappalé dal vraiment ñu jël vraiment waaw. ñu ngi remercier nak Tafa ci djégo yu def. maanaam asalaamaaleykum ngi len di nuyu kenn ku ci nek sa tour ak sa sant di rafetlu fii suñu teway fi ci Matandika bi nga xamanteni mën na ni ñu bari ci ñun fi nga juddoo mu am ay bajjan yo xamanteni ño fi nek bu yag depuis di am taxaway bu rafet ci jigen ñi nga xamanteni tay sen seen la muy nek 8 mars. ah ñu def ko jaglel ko jigen ñi ma bok ko ñom parce que ma nga judd le 2 mars weer bi nek weer bo xamanteni ni bu am solo ci walu jigen te ku nek xamni jigen mo yor keur suñu démé ba nga xamanteni tay ñun mën nañu tekki ba tollu ni dafa fekk suñu yaay ñoo ñu gungé parce ki nga xamante ni daf la ëmb neuf mois nga benn bés jot nga war koo mën a yóbbu yomal xiyaam yàlla suturaal la ba nga judd kooku képp koo xamante ni da am yaay te fonkoo ko wala nga am jigéen te fonkoo ko rek yaa ngi def loo xamante ne xamoo ko mais sant di gërëm sama xarit suma frère muy Moustapha Fall nga xamante ne ay acte noble la xamante ni moom lay def fii muy lëngoo te ma ñëw nag yor mouvement bu tudd CLARI comité de réflexion d' action pour le renouveau de Yeumbeul mais bi ma gisee lëngoo muy def lu rafet dama ñëw ànd ak moom sans autant que ma koy ñëw di ko mu may woo si wala mu may seet si parce que ñun Yeumbeul moo ñu ñor est pas que dañu am intérêt pour jiite dafa bu ko neexoon mu doxal ay entreprise am toog yeen ba mu dëkk di lijjanti boppam du gëstu Yeumbeul mais nekk noble xam Yeumbeul souffrance bi ñuy dund moom moo tax mu ñëw déplacé di duggaat yëmbal di jël dolem diko fi def invité ma ci bébé de l'année man ci Tafa Fall laa njëkk gis bébé de l'année ku ko may këyitu kër ci Tafa Fall laa njëkk gis ku jël bébé de l'année jëndal ko nak pour ñu gënte nit nak ku dul gërëm nit doo gërëm doomu adam Tafa comme frère je te dis merci et dila wax ni li ngay def ni ñu koy rafet ni dila ci sant dila ci gërëm té di ñaan yalla suñu borom may la katan nga mëna def yenen ak comme ñuma la wax rek suñu andé dem bitim réew lii dinañ ko indi yëmbal bam doy sëkk ñun amuñu pour daw ci ginaaw kenn ñi nga xamanteni ñoo jitu commune bi muy maire bi mo mo am pour ñew vers nous ñu jappalé ko ci lim bëgg parce que ñun dafa am taxaway bo xamanteni mom lañ taxaw yëmbal dañoo yagga def yëmbal té dañuy continuer di def yëmbal keneen ku fi nekk tamit dañuy ñew and ak yow lëngoo nak dafa neex waaye koo dem mu ab ànd ak mu dem ak mbaggam da ngaa ñëw lëng waa yëmbal yëpp képp kuy acteur de développement képp kuy acteur social ànd nga ak moom woo ko pour mu ñëw si liggéey bii di ci woo suma xarit suma frère Mbaye Dieye mu nekk nit bu am jom bu am fulla yor société yor entreprise yor ci ay ndaw ñu ciy liggéey bu ko neexoon mu dëkk Almadi mais fii le ñëw yëmbal il faut ñu ràññee ñi nga xamante ni yëmbal da leen a ñor ak ñi nga xamante ni seen jëf yi bopp moo leen ñor faaw ñu xam loolu lii nag yombul hôpital bi bu muy ubbi def naa ko indi naa conteneur conteneur 40 pieds indi ko ci hôpital bi may leen ko ci seen loolu moo ñu war te am na yeneen yu ñuy waaj te lëngoo si ci àndal def ko ci kàttan yàlla incha allah rabbi maa ngi rafetlu kàddu yi di leen sant di leen gërëm di sant bàjjan Mati mi nga xamante ni maa moom ñoo bokk dëkk sama ginnaaw kër la dëkk mu ngi def acte yi rafet ci jigéen ñi bàjjenu gox yi acteurs communautaires yi ñi nga xamante ne ñooy relais yi ñu ngi def liggéey bu am solo maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen wax journée bi yàlla bu mu fi gëj yàlla na ñuy def yu mel nii ay doomu yëbal di ko def incha allah rabbi si daraje Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam tudd Mati Sall nekk présidente bàjjenu gox yi nekk fii ci maternité yëmbal euh, solos bés bi rek comme ni ko ñëpp di defee rek di organiser 8 mars di sargal jigéen ñi ñu nit ñu def suñu participation ànd ci nag ak ay partenaires yu am solo yu ñuy jàppale